الكريم am na nag salaamaaleykum ani waa kër gi waaw li nga yor diisu. waaw xaw naa diisu nag. xaw naa diisu daal man jaay la sant daal. jaay la sant daal. asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi gis ngeen tey fi ma toog mais balaa ma leen koy wax dama leen di ziar di leen déwénati waat euh, ndax xam ngeen ni ñu ngi ci weeru Ramadan Ramadan nag oblige ba tax na seen émission ndogu surprise di ndogu mbetteel ñëwaat na ci beneen numéro ak keneen koo xamante ne nii macha allah koo xamante ni monument la mais monument ci ban côté muy wàllum culture wàllum art wàllum théâtre kooku la ñuy wax euh, xaw ma nag naa la. wala wala wala Aziz Niane wala wala Modibo xaw ma ban la ci wala wala wala Alaaji Alaaji ah li may def nag mooy tàllal ko sama micro laaj ko euh, ban la ci ban tur la ci. waaw Ndiémé bala bala maa laa wax ban la ci dama lay nuyu di la baalu àq ci weer wi di la baal àq euh, di kontaan ci émission bi nga xam ni initiative bi rafet na parce que koor la ñu wax baax na tamit ngeen jug ñëw déplacé wu ñëw si nit ñi. Euh, xamal leen lu bari loo xamante ne réeroon na leen ci doomu aadama donc ñu ngi leen di féliciter bu baax tey ñaan nag esponsoor yi na ngeen jàppale ñu mel nii ndax initiative bii ñu jóg a def lu c'est à saluer donc ñu ngi leen di wooyee ñëpp di leen tàllal loxo waaye njéemee defe naa ne Sénégal ñu bëri ñi ngi naan ma ji ñi naan Cheikhouna ah ñi di wax moo boo defe naa mooy bu mujj bi mais man sama tur dëgg El Hadj Abdoul Aziz Niane la waaye ñu ngi ma tuddee ma Abdou ma Abdou sama nijaayu papa la ma Abdou ma Abdou Aziz moom ak ma donc euh, moom lañ may wax mais nag xam nga artiste moom à chaque événement rek ak li nga xamante ne nii moom la nit ñi di téye ci ci ci li muy def ko mais tur bi Abdoul Aziz Niane la. ni mu ko waxee ah Abdoul Aziz Niane <laughs> noonu lañ ko waxee mais man moom sama sama soppe la sama gaañ la sama bro la di ko wax merci beaucoup d'abord ci li nga xamante ni defal nañu ko ndax xam nga yombul tey nag di leen wax ne ñu ngi fii cees benn dëkk ñaari gaar ah, dañ ko fekk si ba fii nga xamante ni mooy këram kër famille bi gis ngeen euh, garabu mango yeeg yi fi nekk yëpp donc ambiance bee ngi fi li ma def nag mooy indil ko sama pañe comme ni ma koy defee tout le temps moom tey moom laa jaay si sama pañe force <laughs> ni ma koy waxee njéeme laa deben moom ci yooyu lay dox donc tey moom mooy xool moom tamit comme ni ma ko defee woon ak jantal maaraan lan la koy jëndee lu mu ko jaral mais bu boobaa comme li ma wax du ko jëriñoo am na koo xamante ni euh, Aziz mi ngi toog ci koñ bi wala mi ngi ci këram tey jii bëgg na buñ naan allahuma la ko sump mu mu mu mu mu lekk mu lekk mu lekk xam ne carrément macha allah ndog na ba ngoon mais am na lu mu mu lekk kan nga koy jox tey jii waaw da nga ma fekk léegi may génn doon dem daara ji parce que dama am benn daara fii muy daara sëñ Juga Siise xalifaam bi nga xam ne moo ko fi nekkal di sëñ Baara Siise kër gii kër Soleil Levant la Soleil Levant fii la tàmbali répétition yi ñu doon gis askanu lawbe làmb ji ba ci garab gii ngay wax léegi ci la saaneex yéegoon ci si askanu bi ba néew ba jógee donc base du Soleil lépp lu ñu am rek kër gii lañ ko amee waaw maanaam daal ñi ngi ñu fekk ni nii la ñu mel fu ñu mën a demit lu ñu mën a def fàttewu suñu base muy région de Thiès suñu koñ di jaxaw donc baax na tamit ñu yëngu ci mel na da sociale muy daara ji ak jàq ji ñu ngi ciy def lu ñu mën nga xamante ni yàlla mi ngi ñu koy wërsëgale lu ndaw donc daara ja laa doon dem nii ngir joxe sama sama barkeelu rek ci ci koor gi ah donc pañe bii nga indi waaw dinaa ci dinaa ci la ma la doon yóbbu dinaa ko ci teg bu ko defee waa un plus léegi ginnaaw nag xaw naa am contrainte tuuti ma Euh, si ndongo yi kenn mu ñëw ma teg ko ci loxo joxal ma ko sëñ Baara. à suivre nañ dem fekk ji ndongo ja fa mu nekk jox ko pañe bi. ngi si jàmm ñu delloo ziar bu baax a baax a baax waa njéeme kii laa la doon wax gis nga li yàlla di def ah daara ji sama daara la mm-hmm. sëñ Baara Cissé mooy kilifaam sëñ Baara Cissé mu sëñ Njëga Cissé jaxaw de bari na lu fi xew bu teewee xel yëpp day dal waaw donc sëriñ ah, pañe bi damaa bëgg nga yóbbu ko daara ja tey mm-hmm. ah boo ko defee ngeen ngeen ngeen loo ci bu baax a baax a baax a baax waaw waaye nag bala ngaa dem bëggoon naa nga yëkkatil ma benn moom daf may daaneel ko ah. waaw kii ah. macha allah Sénégal bàyyi leen xale bi xel te xam ne ku mën xase di Serigne tubaa la ku mën jàng alxuraan la donc fu ñu jàng alxuraan moom moo koy tëj donc Serigne nga barkeellu rek bala balaa sama xarit yi di dem am di wa sukuri liman kuli bi saara looridan duunu suux tilin da sarsaara am di wa sukri li man kuli bi saara looridan duunu suux tilin da sarsaara loo sanaayi wa ridwaanil bilaa siqatin musaadali min bani daymaana ansaara lillaahi kulli la dal abaari makrumatan من أرتالنا وفي عجام من سار إن الذين إلى سرسار قصدوا سيارة فارخوا دارين هوسار إن الذين إلى سرسار قصدوا سيارة فارخوا دارين هوسار كتبنا وخينا وكنا kii li mu wax nii ah inna lazina ila sarsaara xasxasado moom xasayit Serigne Touba la ah moom bu continué woon rek émission bi mën naa jaxasoo daal ñu def yëfu Baye Fall ah <laughs> Serigne ah, waaw nag ma nuyul sëñ bi ah, nee ko dinaa fa ñëw bu baax jërëjëf fii nag dañ doon dañ doon dañ doon euh, am habitude di wax ki nga ko jox euh, lan la yëg mais kii jarul ñu di ko laaj ndax déjà émotion dalati na macha allah dóor na dóor na ay xasaayit yoo xamante ne yu amul fenn la nekk xale bu ndaw macha allah comme ni nga ko waxee rek ah dañ leen di ñaanal ñu gudd fan doomu ñay kenn du ko ñaanal mu mu rëy da nga koy ñaanal gudd fan macha allah xale yi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax donc def na fi lu nice euh, yaa ngi doog ko door émission bi de mhm. dinañ ko dégg fu ne waaw loolu jox naa la kàddu. incha allah dégg ngeen li mu wax macha allah di di ko remercier bu baax a baax di remercier aussi ki nga xamante ni mooy Pape depuis Medina moo jaar tey ci sañse bi ne ma demal defal yëfu yiw tuuti ah <laughs> yëfu yaay faal nga seeti sa sa sa mag jooju di Cheikhouna maa ngi koy remercier Pape Chéri Mati depuis Medina waaye aussi ki nga xamante ni mooy Lalla madame Chimère ah, yaayu bébé ngoone maa ngi koy bëggee bu baax a baax moo jaar ci bopp bi kooku maa ngi koy ñaanal moom ay seex laa koy ñaanal. waaw dafa sëy waaw bëgg ay seex ah, seex laa koy <laughs> ñaanal yàlla na ko yàlla may di leen jox rendez-vous beneen yoon ci beneen numéro ak keneen incha allah ci seen euh, émission bi nga xamante ni mooy ndogu surprise maanaam ndogu mbetteel jërë ngeen jëf euh, kooru mubarak